amis chers internautes amis fidèles Sénégal 7 salaamaaleykum yéen ñi nga xam ne yéen saxo di suivre seen chaîne bi di Sénégal 7 comme ni ngeen ko gisee tey nag mbégte lañu am dalal koo xamante ne dootu ko présenté waa Sénégal kooku nag du kenn ku dul Aziz bu 2 duñ def lu nuyu ko baax ñoo internet ci balaañ ñu tàmbalee tonton Aziz ñoo ngi lay nuyu. ñu ngi lay fay bu baax di jox sa wàcciwaay di la ñaanal jàmm di nuyu waa Sénégal 7 gépp di wax ni di seen directeur sunu frère la sunu xarit la. sunu mbokku géwal la di nit ku baax moom it di gawlo ñu ngi lay ñaanal jàmm di la wax ne la fii nga ma fekk Pikine ginnaaw raay daanaka zéro ak kër ki nga xam ne mooy Aziz Dabala waaw maa ngi fii toog ci Tiz Apple ñu naan ko uh-huh. Tiz iPhone uh-huh. di suma frère uh-huh. maa ngi lay ziar bu baax ma ñoo ngi delloo ziar bu baax la ci weeru gàmm bi <laughs> waaw gis nga ñoo ngi lay delloo lépp ñu ñaan yàlla rek. Euh, àgg ci ak jàmm ak salaam agsi na ba pare sax. waa agsi na de euh, est-ce que yaa ngi wax sànq bay tudd ki na xamante ne mooy Aziz euh, Dabala bi ngeen nuyoo est mën nga ñu wax sa relation ak moom. waaw mën naa wax sama diggante ak moom Aziz suma rakk la woon. ginnaaw Pape Diouf mi ko intégré mu tax mu bëgg aar. Mm-hmm. mën naa ne à part Djibi Faye ak moom. Mm-hmm. ci ñi ko formé ci laa bokk. ci waaw ci ñi ko formé ci laa bokk. te ànd moom lu mu lu mu gàtt gàtt benn dix ans boo xam ne bu ñu bu ñu gëjee gisante deux jours le trois jours ci ay liggéey yoo xam ne ay caravanes yu doon dem ci biir Sénégal man la njëkk a tamit voyage ñu dem Europe te loolu maa ko sélectionné woon à part Kumba Gawlo waaw te man maa ko njëkk a sélectionné loolu ñu ci nuyu sunu benn mag sunu xarit laay ananas monsieur Jibi Ndiaye ak Baba Jibi Ndiaye di def katu lu baax moom ci ñi njëkk bi ñuy sélectionné Aziz daanaka ci ñi njëkk a ci la bokk waaw mu doonoon rakkam doonoon xaritam mu yàgg koo jàppale nag waaw mu doonoon léppam. Euh, macha allah yaa ngi wax sax nga ne bu ngeen toogee mën nga deux jours du ngeen ko toog te gisante wu leen kon avant muy génn àddina gëju leen gisante loolu. waa gëju ñoo gisante. gëj nañoo gisante ndax bi ñu gëj nañ gisante boobu daanaka tuuti mais déggante nañ ci tam xarit bi. waaw déggante nañ ci tam xarit bi mu ma Aziz yow maanaam ko na ngaa bëgg cere ñuy tooñoonte. maanaam mhm. Abdou Aziz yow Aziz dama laa gëj a gis ñuy waxtaan. Mhm. yaa ngi ma ne ko il faut que nga ñëw parce que am na ci lu ma la soxla. Mhm. parce que comme dama am benn compagnie bu tudd dal jàmm communication. ñuy dox ci wàllu communication ay caravane ci côté danse. Mhm. ma bëggoon woo ko ñu waxtaan ci ci côté danse ma jox ko ko. Mhm. far yàlla def lii mu def. jotu leen ci waxtaan ah, jotuñu ci waxtaan. jot junj bi sax leerul. Mhm. ma ne ko soxla naa la rek. bëgg naa ñu am lu ñu waxtaan. Euh, nan nga yëgee génn àdduna. waaw bi bi ñu bi ñu ne bi mu jour bi mu génnee àdduna dafa tomanteeg jour boobu ñuy dem Touba waa 2S. mais defe naa ne man ba nii may wax ak yow nii sax. affaire bi maa ngi la koy wax sànq dafa ma jaxase. maa ngi naan amul ci sama bopp. ndeysaan fa diis. parce que ñu koy denc dañu gëm yàlla. xam nga mais dafa metti metti na lool lool lool waaw xale bu ndaw daan liggéey. xëy na am na ñu ko mag waaye moom ri ñu bari dañ ko réere woon mbir. dakate Aziz lu mu am jox yaayam. dakate Aziz waxtu du ko raw. dakate Aziz da doon dimbali bay dimbali ay rakkam. ndakate Aziz daan na jàppale ñeneen ak ñeneen ak ñeneen ñu ñu xamul. waaw Aziz daal benn maanaam benn lu fi man xaw ma daal. Mhm. man Aziz daal da maa ngi ñaan ci eh. darajay Seydina Mohamed yàlla na xippee àjjana. amiin moog waali. amiin moog waali. ci <laughs> tey jii nga dëkk Pikine eh, mën nañ ne am na loo xam ne doon nga ko biir pikin mhm. eh, macha allah Aziz Dabala génn àdduna ñu ciy tudd ay doomu Pikine. Ah, nan nga dundee loolu tamit. waaw mu metti ñu rek mais bu man de man de moo waxee dëgg à part suma benn rakk boo xam ni maa ngi ñaan yàlla yàlla seetal ko ci mbir mi loolu rek lañ mën a ñaan. comme taxal nañ ko muy Nabou Leye. Mhm. maanaam à part Nabou Leye moom mu ñu ci wax ñeneen ñi mënuma la wax kii. xam naa ko ci hmm? waaw. man après dama ne ñii du ay isado ay innocent yi doon dund li ba dugal seen bopp à part Nabou mënuma laa wax ñi ma ci dégg kii xam naa ko ci parce que yonent yàlla moom te pikin laa juddoo fi laa yaroo fi laa màgge am face jàkkay murit mhm. foofu booy xool ci Pikine moo njëkk a nekk première Pikine mhm. diggante teg Jaco tali bu mag mhm. xuru mbukki mooy rond point tali bu euh, tali bu bees diggante boobu moom moo njëkk a siiw ci Pikine ma dëkk diggante Belfort Soloy juddoo ci kaw tali bi am face jàkkay murit man naa ne ci nit ñi njëkk a euh, tuddee ci jàkka jooju. parce que sama turandoo moo tax jàkka jooju am sëñ Aziz Baara doom doomi sëñ Afia Mbàkke rek sëñ Touba. macha allah waaw ñu Pikine la ñu xam. fi lañ juddoo. li may li may slogan bi may faral di wax pikin di ko wax ku am sa dëkk téyel ñun Pikine nañu gënal. ak lu mën a am. Mhm. moo ñu gënal. Mhm. Euh, macha allah comme nee nga Nabou Leye rek nga bi ñu tuddee Nabou mu nekkoon euh, doomu ndeyu Aziz Dabala ñu taxul ma yéene ñeneen ñi dara 18 ans nan nan ko dundee. taxul ma yéene yeneen xale yi dara. mais xam nga affaire bi dafa nekk ci benn procédure boo xam ne. Mhm. ma koy faral di wax sax naan leen il faut que ñu ñu yéene ñooñu jàmm. Mhm. waaye il faut ñu bàyyi yoon def seen liggéey. parce que affaire bi yéeme na yéeme goo xam ne. fekk nit ci appartement am rey ko. Mhm. ñu naan lii def ci am ay call téléphone ay affaires yooyu il faut ñu bàyyi yoon. ñu def seen liggéey mais sénégalais léeg-léeg dañuy taxaw place yoon. Mhm. fu mu ne nii lu ma la mën a wax lu dul seedeel waa Pikine ci lu baax wax la ma leen xamal. Mhm. mënuma taxaw ci place yoon. il faut ñu bàyyi yoon def seen liggéey. ñi ciy wax ñëpp dañuy wax nii rek. ba biñ leen di mujjee indi Pikine amul kenn ku dugg ci biir. convoqué na leen ñu ñëw ñu jàllale leen ba léegi verdict bi kenn xamul kenn xamul la ñuy wax rek mhm. il faut que ñu bàyyi yoon def liggéeyam mhm. waaw ak keroog tamit ñu la nga ànd ak ki nga xamante ne nii muy Kumba Gawlo Seck euh, dem euh, seeti euh, yan kii nga ñu mën a indi waaw la diva moom dama ko wax li ma wax ci laay ananas laay wax nee naa leen Kumba Gawlo la war a def ministre de la culture lu lu tax waaw kay parce bi décès bi amee moom rek lañ gis mu jël vidéo génn ko wax mm-hmm. yónnee ay nit bi mu jógee Europe wàcceel ko kaamil ñu ne déetawaay mu ñëw mu néew mu bari mu def li mu war a def ba yëkkati tele ba nga xam ne Aziz mi ngi ko doon wax pour yéene ko famem mm-hmm. raka mu mu yëkkati tele bi indi joxe la mu war a joxe te la muy ba mu koy joxe maa ngi fekkee du ma ne néew na waaye xam naa ne loolu kun ko jox mën na faj dara kon Coumba Gawlo Seck nit ñi dañ ko war a ñaanal nit ñi dañ ko war a lii mu ministre de la culture day jigee ay nitu culture am mm-hmm. waaye ñun ministre de la culture bu fi romb duñ la xam mm-hmm. parce que duñu wàcc ci bâche yi mm-hmm. ministre de la culture dafa war a ba war a bàcc wàcc ci bâche yi fi artistes yi nekk dem xam leen xam ñan ñoo identifier leen parce que artistes yi troupe yi nekk yëpp am na ay récépissé même bu dee tey jii dem nga jël sa récépissé yóbbu ko ministre de la culture. lu tax ñu reconnaître la pour nga am carte artiste rek dafa jafe. lu tax parce que parce que lu tax mu jafe ñoom bu nu wàccoon ci base yi wax leen na leen nii ngeen di def nii ngeen di def nii ngeen di def ba am carte artiste day yomb. Uh-huh. mais boo bëggee toog ci ministère ba rek. Uh-huh. artistes yi dañ leen fa fekk ci base bi ndax ñoom ñoo la fa teg. Uh-huh. kon Coumba Gawlo lii mu def nii. man su ma doon su ma maa ngi ñaan. Euh, président Diomaye. bu ko mënee def ministre de la culture wala ku mel ni Laye Ananas mm. nag ko def Laye Ananas moom tamit noonu la doone jàmbaar mm. noonu lay xeexe culture mm-hmm. ku mel ne Pape <laughs> Moussa sax buñ ko ko defee sonk parce que moom ci artistes yi njëkk ñëw mm-hmm. an nag Ndeye Gueye Mame Bassine mm-hmm. Ndiolé ah ñëpp ñëw ñu maa mi ñëw bërki ki démb rek borom Espagne ñu fexe na ba maanaam da ngay gis ñoo xam ne dalay lay wóor na ñi ay nitu culture lañ moment bi mu yëgee loolu dafa jooy. nga xam ne kii xolam tooy na. mais kon moom moo war a tax ñu delloowaat njukkal. Kumba mm-hmm. Gawla. Mm-hmm. wax dëgg yàlla Pape Diouf ñëw na fi. ak Waly Ballago Seck Waly Ballago mm-hmm. ngi koy ñaanal yàlla na ko yàlla defal jàmm moom pikin la dëkk. moom ñu mu ko ni ñu ko ñu ko ñu koy jaalee noonu lañ ko war a jaalee. ndax doomu pikin la. monument pikin la. ba pare dafa feer ci pikin jàppale na fi ku ne. dimbali na fi ku ne moom Waly Seck. nit ku baax la. du bëgg lu ko neex a tax may wax de. da ko def moo tax ma koy wax moom Wally Seck. nit ku baax la Momo Dieng. Mhm. voyage la jóge barki démb la jóge voyage ñëw démb. dëgg la dëgg la ànd ak Kora ah ñoom magay ñëw nañ ànd ak Kumba Gawlo xam nga yooyu dafa doon ay gestes yoo xam ne tama xam nga ko. Mhm. bi nekk France bi doon tëggal Wally. Mhm. ànd nag waa groupe am sàmm ndox ah groupe tamakat yi nekk ci Sénégal gépp yaat ma caam ah ñoom fexe nañ ba jël benn benn kit dajale seen li ñu am. Mhm. yóbbante ko ki nga xam ni moom mooy euh, dem ci yaayam jox ko ko. Mhm. ah mhm. yooyu ah, moom mooy ay gestes yoo xam ni artistes yaa ngi koy def kon suñu ministre de la culture war na jige nitu culture yi. man Abdou Aziz Ndiaye géwél bu Suluse de su suñu suñu suñu suñu doxul ni ñu war a doxee ci culture bi eh. dinaa poser candidat. pour nekk ah, waaw xeex ci culture bi. kon da bi doxul. non culture bi doxul yow ministre de la culture ko xam waaw mais du yoon normalement yéen yéen li ngeen di liggéey ci Sénégal Sénégal set waroon na am situation yoo xam ni ah di ci gis seen bopp yéen waaye dangay liggéey sax ci site bay bëgg a dee daanaka doo ko dara. loo fayeeku da nga koy defaat sa bopp mais war na nu mën a jàppale nitu culture yi waxuma dara sax mais ci formation yi sox nga soxla nga formation soxla naa ko keneen soxla na ko war nga mën a doon animateur di caméra di monter di def lépp mais formation yooyu amoo xaalis boo ko defee mais ministre de la culture bi dafa am ay fonds yoo xam ne ñun ñoo ko moom kon il faut que moom mu génn soutenir artistes yi kii nag xëy na ku bees la xanaa dina wàcc terrain bi waaye man mënu la wax nii la tudd waaw noo wàcc ci terrain ba pare jaale si Aziz na ñëw jaale si Aziz parce que xale la boo xam ne li mu def ci culture jàmbaar la waaw xale bu yaru moo tax léeg-léeg bu ma déggee ay tuuma man leen loolu koy yóbbu àjjana waaw tuuma moom du du du maanaam maanaam maanaam day dugal nit àjjana mm-hmm. wax loo xamul yow sa sa barke bi nga waroon am yëpp la ñuy jël jox ko ko. waaw. Mm-hmm. Ah, ñu defal ki nga xam ne mooy waajuru euh, Aziz lu ñuy xaar. pour ñu defal ko waaw lu ñuy xaar pour ñu defal ko nit ñi moom wax dëgg yàlla gaa yaa ngi def ves ku nee ngi dem boo demee yaa ngi yóbbu sa njaal di yóbbu. li may ñaan mooy am na lu ñu doon jiiñ Aziz Ndiaye. Mm-hmm. naan may na ko kër ak may ko kër. man Aziz Ndiaye wax dëgg yàlla dama ko estime mm-hmm. nit ku baax la. dama bëgg mu jàppale ko maire bi am kër gu baax mm-hmm. gu mu dëkk di Aziz doon mëbët man saa yi ñu masaan dem voyage wala ñu toog loolu rek dama Aziz man si dama bëgg tabax kër gu rafet yóbbu fa sama yaay waaw loolu mu doon mëbët Aziz Ndiaye ñi ngi ko ci woo Modou Mbène Diop ah ñi ngi ko ci woo Thierno Ndom Ba ñi ngi ko ci woo Isaka Diop maire Ablaye Diop ah Ablaye Timbo ah maire yi ne fii ak autorités yi nga xam ne yàlla may na leen daraja ñu ngi leen di ñaan ñu dem soutenir Alsane Mbaye géwélu VIP barki démb nee na ma naa fa egg Alsane mbay ñu ngi lay ñaan lépp loo ci man nga dem def ko bépp euh. koo xam ne yàlla may na la doole rek mhm. demal nga jàppale ko macha allah euh, aussi euh, nan nga gisee insécurité bi nga xamante ne am na biir Pikine insécurité bi am non loolu dañuy wax rek insécurité amu fi polisu ginnaaw raay mi ngi liggéey ni mu war a liggéey polisu Caaray mi ngi liggéey ni mu war a liggéey polisu Pikine mi ngi liggéey li mu war a liggéey tey jii bu bu dee Samba Boy yóot na nit bari rey ko ci ginnaawam la ko defee waaye bu taxawoon du ko def léegi bu ko defee coow day am mais insécurité amu fi li ñuy wax mooy dolli sécurité bi moom d'accord naa ndax instant yi am nañu benn problème boo xam ne ñu bari duñ ko souligner danoo yokk armeel yi mu jàkkaarloog stade bi marché zinc nekk nii stade Alassane Djigo nekk nii léegi léeg làmb day tas am ñuy suuli marché bi ñu tëj ko stade Alassane Djigo ay nit dogo fe te benn croisement la muy rond point Dominique ñu ngi ñaan police su Pikine ak état bi ñu am ñu fay monter saay su ne à part loolu dee bi xew fii mooy xew fépp c'est que Pikine dafa nekk xolu Sénégal lu fi xew rek coow bari mais dee bi xew fii mooy xew fépp di profité di jaale dafa am biis boo xam ni. Mhm. dafa def accident fii mhm. la déparé. Mhm. am ñu ci gaañu ñu bari ñoo xamee sax lakk nañ ba xàmmeetuñ leen. ñu ngi ñaan yàlla na leen yàlla xaree àjjana di ci jaale suma benn frère Mor Mam père mi ngi France. biis boobu nee nañ gaz bi la mais am na ñu génn leeral nee nañ du gaz yu ñu ci def nee nañ bi la. waaw mais daal bu dee gaz bu dee. wala am gaz mais tamit ba léegi man damay wax rek. bu gars yi yéegal bagage yi ni ñuy vérifier bagage yi ndax léeg-léeg ñu yéegal saako te mën nañ cee def gaz te kenn du ko xam waaw di wax ni sécurité yàgg na fi am police yi fi nekk duñ leen ŋàññ déedéet ñu ngi liggéey muy police Pikine police su Ginnaaw Raay police su Caaray ba ci dëkk bi foo dem am na association boo xam ne ñu ngi garde ay gar gardien am na fi mais dee moo ñëw bu dee amee nag ak ni mu amee nii nag mu metti nag faaw ñu wax insécurité agression fépp la am. am na parcelle. yaa ngi dégg am na almadi am na am na tëngéej am na Ouest am na Nord am na fépp agression fépp la fépp la agression am am na jàmm gën am na caaray am na yëmbal am na fépp danga naan nañ ñu yokkul sécurité bi mais agression am na fépp ba boo génnee palais pale laa la wax di dem dakaar ville fépp fépp am agressé nan yokku sécurité bi ngay wax te buñ ko yokkee fépp lañ ko yokk kii agressé tout le temps mën naa agressé beneen bi mooy man dama defee ne ñii ñii ñii agressé dañoo àndul ak seen sago. est-ce que du xaw ma vodi xaw ma lan affaire yi ñuy naan nii ak affaire di ko kii il faut que ñu vérifier ko dëkk bi doy na waar da ngay gis xale bu ndaw. am nga na na way wii gars yi xewal. takk si si nga xam ne nekk naan takk sa xool am na ci boo yoo xam billaahi wallaahi am na ci boo yoo xam ne yu bari xam nga lan la ñuy naan kooku ananas bi di di kii di di di ko wane ci te mandiwunu mandiwunu maanaam dafa am ñoo xam ne yàq seen der maanaam yàq seen couleur. da leen jaral maanaam pour ñu ne gel bii bandi la maanaam di jéem a gans gansel fekk tapet la am na ci ñoo xam ne ñu bari defuñu ko. maanaam na affaire benn affaire génn rek ñu wane ci seen bopp léegi nag coow li bi mu commencé affaire boobu génn ku ne di vidéo lu wax ñu féetale ko banlieue bi banlieue bi sonn nañ trop weddi nag du set du du ragal setal sa der la ñun ku am sa beneen dëkk téye ko Pikine nañu gënal Pikine mooy sunu lépp ñeewuñu almadi ñeewuñu mamel meewuñu kenn yéene nañ ñëpp jàmm mais ku am sa dëkk téye ko ñun Pikine mooy sunu lépp waaw Pikine ay noble la fi dëkk. Pikine ay nit ñu baax a fi dëkk. Mhm. ay nitu valeur ñoo fi dëkk. ay kilifa fi dëkk. Issa ma ne Pikine El Hadj Seydou am na fi kër. xam nga ne Cheikh Ahmad Bamba am na fi kër. Cheikh Omar Fouti Tall am na fi kër. kër mën Mansour mooy Serigne Ba kër Serigne Babacar Si. Mhm. am na fi kër. Cheikh na Cheikh Saad bu njaboot ak fi mu doon ñëw tali bu mag. maam Limaamu Laay diggante nding fii am na fi bërëb. nit ñu baax ñëpp am nañ fi bërëb gis nga ki bëgg a baax mi ngi baax waaye ki bëgg a bon kenn mënu koo tee bon kon nañ bàyyi coow lii am rek ñu bëgg a dëkkal pikin lii pikin laa pikin laa nga gis nag ñu soxor ci internet bi bon di bindal pikin loo xam ni moo am na ci ñoo xam ne moom ay trichekat lañ ñoo xam ne gëmuñu seen bopp fii lañ dëkk dem tuxu almadeeg mamel ak ak ay norfar di toog foofu di di di di non mooy da téye sa téléphone rek di yàq der te ñoom ñooñu xoolal bu guddi jotee ñu dugg ci baar naan ba saay dem seen i kër mën fa indi ay défaut mais bu ñu waxee di yàq der am na ci ñoo xam ne bu guddi jotee ñu dem defi leneen nanu bàyyi Pikine pikin ni mu dëkk la dëkk julli la gis nañ ci benn waa yoo xam ne mi ngi Europe naan naan Macky Sall moo tax Macky Sall ñëw na fekk fi benn juma defar ko mais Pikine bu ma la doon wàññil juma yeeg jàkka yi du jeex. lépp rek ngir bëgg nit ñi seetaan la nga toog di fen di yàq deru pikin di wax lu ñaaw ku am sa dëkk téyel ñun Pikine nu gënal lu ñu am gis nañ na gaay yi ku ma loolu mënut ñàkk. zembare bi nag man man zembare moom fépp la am zembare fépp la am. naan sa di takk sa si. déggoo la ma la ci biti la ëppee. gulu gulu bi. gulu gulu bi ñeneen a ngi gulu gulu di zembare mais pikin fi mu nii comme coow am na ñu bëgg ñu zembare gulu gulu takk. xoolal ful bi ñoom ñoo koy takk di ko dugal biir pikin kon nañu bàyyi Pikine bu ñu jugee. di yàq dara Pikine non dañu ko indil billaahi dañu ko indil. sa weexoo leen donc tamit waaw non weex dunk bi mooy xolu Sénégal la Pikine xolu Sénégal la waa di wax ni yàlla na fi yàlla def jàmm yàlla na nu yàlla lafal cap yàlla na yàlla musal seytaane yàlla yàlla aar Pikine ci darajay Seydina Mohamed. yàlla na yàlla euh, aar Pikine nan nga gisee immigration clandestine bi parce que mën nañu instant bi ñu ngi ci deuil national. parce que gis nañu. Euh, nekk. ñu ne immigration yi nangam nangam ki fi nekk ñëw mu gën a bari nan jàppale wutal xale yi ñu xëy. Mhm. nañ wutal xale yi ñu xëy lii metti na. xam nga ne ay xale yu jigéen dem ba am fit di dem weer jot nga doon mag ne lëng ci kër mënoo fay luyaas chaque jour ñu yóbbaale la ci añ chaque jour ñu yóbbaale la ci courant chaque jour ñu yóbbaale la nan jàppale xale yu ñu liggéey nan ibbi société yi yu nekkoon port am na société yu bari yu fay nan jàppale xale yu ñu liggéey man waxuma benn xale na dem xanaa xamoo ne géej gee feeñ mais xale yu bari diggante Mauritanie ci àll bi noonu naari ñu ngi ñu leen tëj ci kaso yi géej gi moo feeñ nañ lijjanti loolu tamit dem leen ngeen lijjanti xale yi ñu tëj ci ci désert bi xale yi ñu tëj ci kaso bi nañ leen lijjanti nu nu mën a ñibbisee xale yi ñu ngi leen tëj mais tey jii gaal yi chaque jour mu départ mm-hmm. ah lii metti na ñaata ah tey dégg naa tey am na ñeneen ñun jàpp lan moo ko waral nañu wutal xale yi ñu liggéey nañu wutal xale yi ñu liggéey dëkk bi doxatul dara doxu fi dara dara dara lépp a taxaw dëgg la changement dëgg la boo yoree réew war nga koo mën a changer mais ci biir changement bi da ngay wutal xale yi ci luñ jàpp suñu premier ministre Sonko na na jéem a fexe xale yi nu ñu liggéey na fexe xale yi lu ñu liggéey boobu xale yee leen wooteel réew mi réewum xale la xale yee voté jug fajat teel votel leen ba sonko ak jomaay ñu naan jomaay mooy sonko sonko mooy jomaay léegi nag liggéey mooy sonko sonko mooy liggéey jomaay mooy liggéey xale yi dañoo bëgg liggéey yeewu ci xër kër fajar teel war a war a faj dara fajoo dara ñu lay yóbbaale ci añ ndékki reer fóot lépp courant ndox dafa metti moo tax xale yi di dem ci géej gi waaye xale yi nag nañ xam ne géej dafa am borom géej amul banqaas gaa yaa ngi ci biir géej de am na ñoo xam ne bu ñu duggee ci géej géej soppi leen dangay ngay naa da ngay dugg ci ndox mi ba ci yàgg jéggi-jéggi ña nga nekkaloon bu dee cinq leen di laajte ñi ñi nga nekkal ñii ne fër booy dem ci géej amoo gàllaaj amoo dara dugg ci biir ndox mi xale yi nanu nanu nanu bàyyi géej gi ngir yàlla bàyyi leen géej gi bàyyi leen géej gi géej amul banqaas amoo foo jàpp ah, ba benn benn benn ay bant yuñ jël daaj ko pont yi mën naa mën naa mën naa wekke ko ci yoon bi bu ko ndox mi di tooyal a ah moteur bi mën naa paan gasoil bi mën naa jeex lekk gi mën naa jeex bàyyi leen géej gi te chaque jour ngeen réer ci te jamono ji ñu toll bu taw bi duggee ngelaw li day ñëw bàyyi leen géej gi ngir jëmmi seydinaa Mohamed bàyyi leen géej gi ngeen toog nan toog rek muñ bu dee ñëwee ñu dee ginnaaw réew mi amul amul liggéey ah loolu loolu ñu dee ah. ah réew mi amul liggéey nañ waxante dëgg ñi fi nekk jeunesse bee leen fal mee nañ jàppale xale yi. Mm-hmm. nañ jàppale xale yi ñu liggéey. Mm-hmm. waaw yàlla na la suñu borom defal jàmm nga tàggatoo ak internet yi. waaw tey moom danga ma fekkee surtout ma gaal yi fi nga dugg moo mm-hmm. xaw a doy waar. di jaale Aziz di ñaan yàlla yàlla na ko suñu borom xare àjjana. moog waali ci darajay Seydina Mohamed di wax ni. Euh, am na nañu mbégte bu baax mu mel ne waali Pape juuf sunu ministre de la culture Coumba Gawlo sekk ñëw fi ah la tamit gis na gis nañ ñu ba gars yi ñi def ñëpp ñëw jaale groupe Tama ñoom Mbay Tama yat ma ñëpp waaye di di wax ni fi nga ma fekkoon mooy tiis ay pël tiis iPhone ah su ma rakk yaa ngi nii ñoom tiijaan ah papa ak gars yi fi nekk yëpp di ñaanal ñëpp jàmm di wax ni Sénégal set yàlla na leen suñu borom defal jàmm image bu set Sénégal set yow di la jaajëfal sama siste sama xarit di jaajëfal sama borom ki nga xam ne moom dàll mi nee na 15000 la ko jëndee laay papa nee na daal lii 15000 la daal lii nga xam ni. non non non eh, bul dugg ko fa kii. waaw di ñaanal ñëpp jàmm di la ñaanal jàmm. Mhm. di wax ne bala moo yàgg dara yàlla na la yàlla may borom kër gu baax. waaw goo xajoo ndax nag jot na. ci weeru gàmm gi ci dara darajey Seydina Mohamed. Pape Ale yàlla na la yàlla defal jàmm. ñun yaay sunu mbokk yaay sunu xarit yàlla na nga gudd fan. yàlla na Sénégal set gën a ibbeeku ci dara jëy Seydina Mohamed jërëjëf. maa ngi nuyu pikin gépp jërëjëf. ok